politiciens yi soo bëggee gis ab workat boo bëggee gis workat képp laa wor ak wor bi ngeen xam nit moom mën naa mucc ci ay nax waaye mënut a mucc ci ay wor xam nga wor moom kenn mënu cee mucc wor moom koo wóolu rek boo gisee workat xoolal politiciens yi yéen ñi ngeen ci xamoon xool leen leen déglu leen kenn ku nekk ba nga ko xamee lam daan wax ak li mu wax démb ak li muy wax tey ci ay mbëgg jëm yu sokku bi jaw koku bu la bahana ne limi wax limay wax baxna nga gëm ko daf la neex rek politique sey yéen ngi bëgg yaq Sénégal jikko yi ngeen di wane gone yi di ci tek bëtt suñ leen ci royé bam sotti Sénégal gépp yaq nit ko xam bi ki do wax li ngay def do def li ngay wax wax aw fen ak wax wax aw fen ak dara nga day nekk ci biir mbooloo wax fa fen woo xam ne bu subaa balaa ngoon nga weddiwaat ko ci meneen mbooloo doo bàyyi xel ña nga waxaloon ci suba loolu ku man loolu bu la say njaboot royee boo léegi gis biir yow sax da nga ci am problème kon politiciens yi xoolaat leen seen doxin doxin wi ñaaw na lool te bon tey da ngeen nit ñi dañoo amul xel am na ñuy xel dañ cee mënu dara waaye nit ki moom boo ko waxee mu dañ nga waxaat ko mu dañ nga waxaat ko mu dañ boo ko waxaatee bu ne waaw it dafa am kersa waaye xam ne day dañ gouvernement bi tàmbali ci Macky Sall Moustapha Niass doyen des juges sëñ Bassirou Gueye yéen ñett yi di am ngeen ay responsabilité yu ci réew mi ndax àgg nañ ci fi mu ne politiciens yi yàq nañ politique ba ba xam ne lépp lu xewati lu ne yéen ñett lañ koy jiñ yéen war ngeen cee seetal seen bopp nag ba nga xam ne ba ñu xam ne li ñuy wax du dëgg. ndax kat li fi xewoon bëkki démb kat coow la gi ne bay waye kenn ku nekk amna noko xalaté ku nekk nak xam nga xam nga jëla jey deug sa yoon dacay nekk wala sa yoon man caa nekk nag waye ñepp xam deug gi gono yi ndaw yi xam nañ deug gi li nak limi jur baxut limi jur baxut limi jur moy da ngeen di ag ci nak lepp lu ngeen yëkëté di nit ñi contre ko du ngeen ci man dara da ngeen dem ba wax deug sax gi bu ngeen ko waxee nit ñi wéddi ko du ngeen ko man dem da ngeen ko ma régler parce que yeen ko ji kon assemblée bi ragal yalla loi buñ fi teural mu jall de yéen ko jàllale waaye da ngeen ko waxat ci kanam yalla de da ngeen ko waxat ci kanam yalla de loi bo xam de yak diine li xam de yak ngor bo xam de yak jom nga ne mu woor la naññee xam li baxut bëgg ab salaire tax nga waté ko bam jall ñu jaarale ko ci kaw doomu aadama yi wallahi da nga taxaw ci kaw kanam yalla wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda bu nga da nga xam lu ko jëndee te yene ay loi nak te yéen di bu ngeen djubon te mbaandu te def seen liggéey loi balang ko balang ko wati da nek loi bu leer nañ ni bo xam du lor ken bu lako ko gouvernement wateloo bañal bu lako ko opposition wateloo bañal su ngeen ko watee ba nopi joxe exécutif bi nga xane moy moy Macky Sall ko nguram te yene len di contrôler te wor len di bu ñadde ngeen tegg len ci yoon bu wawa ñom duñ mëna wacc yoon wi loi yéen a koy tëral jox ko jox ko jox ko justice bi justice bi di àtte ngeen di ko contrôler su fekkee ne loi jaar na yoon ngeen contrôler justice bi mu jaar yoon kon su boobaa dara du xew kon lu xew yéen assemblée yéen a yéen yi nga xam yéen tëgg luwaay yi te loi te yàlla tëgg ne loi ba noppi ngeen lànk ne loi yàlla bi du fi jàll tëgg seeni loi teg ko ci kaw nit ñi leen def leen neex xalifa nit ñi xamuñ ci xam nañ ci dara lañ leen di jural nag mooy wan leen gannaaw leen seen bopp te xam ne doxin yu baaxut nit ñëpp a ko xam nag ku wax ak ku waxu doo nga fi nekk waaye ñëpp xam li xew tappale yoo man a def lu mu lu mu jan jan jan jan jan ni ko xamee rek la nit ñi xamee dañ cee mënu dara waaye bis dana ñëw nag ñu war la ne xam nañ li nga doon def leen xel ci lii opposant bi mere président bu mu leen tax a jàdd ci yoon woo xam ne du yoon président ak nit la kuñ fal rek waaye nit ñee leen fal nag yéen itam nit ñi ngeen bëgg a jot su président bi jaaree yoon fa lay alhamdu bu jaarul yoon itam yéen na ngeen fexe ba jaar ci yoon waaye am réew kenn du ko taal président de la république noo ngi lay sargal ci bis bi ndax yaa jiite réew mi di xamal nag Sénégal sonn nañ Sénégal sonn nañ ndax yii fi jaar yëpp bi mi laata ñëw daa fekkoon ñu sonn yii ñëw jaarate ji ñu ngi dëgmal nawet bi nit ñi amuñu jiwu nit ñi amuñu engrais nit ñi amuñu matériel nit ñu amuñu dund su fekkee daa nga def social lu baax la de waaye ren ñi lañ ko gën a aajo woon kon dimbaleel nit ñi yërëmal nit ñi te jàppale leen boo ko defee yàlla dana yërëm yàlla dana dimbale te jàppale la irhamu man fil ardi ko man fis sama